mbokk yeeg xarit yi ñuy topp suñu émission bi fii si Sunugal 24 di xalima bu ñëw xalima bu ñëw dikkaat ak yéen tey si dépogage inte 15 bi ñu ñëw set si ki nga xamante ni yàlla da ko baaxee ci xam-xam xam-xamam màcc lool ci wàllu faj cosaan ak aada fii ci réew mi ak fële ci bitum réew mu demoon nag tukki tukki bu yàgg lool waaw ñu gëjoon ko gis askan bi namoon ko lool nag sëñ Mame Mor Diop lañ koy wax dëkk fii si Parcelles Unité 15 balaa ñuy def dara ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi salaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim alam nashrah lak sadrak wa wadana anka wizrak alladi anqada zarak wa rafahna lak zikrak fa inna ma'a al-usri yusran inna ma'a al-usri yusran fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sëñ di baas ñoo ngi lay nuyu di leen ziar di nuyu mboolem képp kuy seetaan Sunugal 24 di leen ziyaara di leen nammantikoo di leen jox seen wàccuwaay te di leen balu ak waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mamour Diop lañ koy wax xam-xamam màcc loom jëm ci wàllum seet seex mi ñu dugg si wàllum mais balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dina la laaj lu waral tukki bu yàgg bi lool nga tukki woon tukki bu yàgg lool nga joon génn ci média bi tey ñu sàkkuwaat ak yow depuis diir yàgg na lool ban la soxlaa pour bëgg def ak yow waxtaan hmm. pour askan bi amee ci njariñ mais boobu ba léegi amuñu ko tey la ko yàlla dogal lu waral li ni waaw xam nga jamono yàlla dafay dogal eh, nit ki ci jëmmi boppam bu demee ba yëngu yëngu ba ëpp ko doole day dem ba li koy yëngal moo ko ëpp doole loolaa koy moom waaw ndax eh, doomu aadama yi da ngay dem ba seen seen yitte day dogal ba eh, lu ci bare bari bari bari dootoo mën a toog faaw ngay génn di bouger di leen fekk loolu rek moo waraloon ñu gëj ci média bi waaye du dara ñu ngi koy jégalu bu baax di wax ne nammoon nañ leen bu baax a baax a baax jërëjëf Cheikh bi ñoo raw ñu dem ci wàllum seet sa xam-xam màcc lool ci wàllum seet da siy mhm. dimbali si askan bi ci nekk ci réew mi ak ci vëlëb si bitim réew mhm. ñii di seetee pettaaw ñii di seetee suuf ñii di seetee ndox yow ban façon seet ngay seetale doomu adama ku gis waa man ramli lay seete ramli muy seet bu am cosaan bu yàgg boo xam te ni boroom xam-xam yu bari sukkandiku na ci sukkandiku nañ ci euh, man nag wax dëgg yàlla ram li kenn ku nekk ak ak ak fa nga ciy toll ndax lu ñuy jàng la lu ñuy tarbiyewu la dafa am ay ay tur yàlla dafa am ay rawaxaan ak yëpp waaye nag euh, seet moom li ma koy waxee rek kenn ku ne day wax naan seet seet seet waaye seet bu wér la boo xam te ni lu ma ci wax nit loola du deñ te lu wér la te yàlla dogal na loolu xaw ma lépp nag mënuma lépp ndax suñ borom rek moo fi nekk te moo moo dogal sama juddu lépp it ci coobareem lañ ko sukkandikoo rek lépp lu luñ def it doomu aadama gis tekki bët wala ñu wax ko mu tekki bët coobare suñu borom rek la waaw. loolu am na solo yéen a ko dégg ci wàllum seet mais ñu dem ci wàllum tële muy feebar bi nga xamante ni feebar bu complexe la nga yor ci ay garab yu mucc ayib yoo xamante ni yaa ci yaa ngi koy yóbbante surtout ñi ci bitim réew. Mhm. ñoom ñoo ci ëpp li ñuy eh, commandé garab googu mais garab googu mën nga ñu ci dikkal tuuti garab googu. waaw garab googu wax ne. Mhm. bari na kër yu jaxasoo moom moo leen di ja moom muy ñàkk ngóora néew kàttan wala nit koo xam te ni li mu yor mënatul jóg ñu koy wooye yoom da ci am façon da da ci am ñoo xam te ni dañuy amee éjaculation précoce mooy bu ne yóob rek daal ni këlëb teel a yegg da ci am ñoo xam tamit li ñu yor dëgërut mën nañ cee góor góorgóorlu waaye dañuy mujj sonn rek wàcc donte du daanu sax waaye dañuy sonn rek wàcc ndax li ñu yor moo dëgërut da ci am ñoo xam ni li ñu yor sax dadul far mën a jóg loolu nag yàlla dogal na garab gi daf koy faj daf koy saafara daf koy saafara maa ko defar maa ko teste utiliser ko sama bopp xam ci lu wér muy loo xam te nag lu wér la. te gi amul benn effet secondaire. mukk si àddina bu ko amoon dina dinaa ko am. bu ko amoon dina ma ko def ndax man testé naa ko lu mat ay weer ñaari weer ba jàpp ci ñett door ko nangoo joxe teyit bu amoon lenn lu muy gàllankoor doomu aadama dana ma ko gàllankoor man jàmmi kër gi laa ko tuddee lii non seulement boo ko dee utiliser day dem ba sa sàkkara bi bu faiblesse bu mën a am da ngay sentir ne mi ngi koy yokk petit à petit waaw dem ba sa soxna sax soo daan sëy ak moom sax waaye tey gii boo ko laalee da ngay xam ne da yegg ci moom foo xam te ni mosuloo ko fay yegg ba mu xamal ko boppam te loolu lu jafe la amul nag benn ngaañ amul naan dama koy bàyyi mu yàq samay kii effet secondaire noonu amu ci ndax garab yi mu composé yëpp defar ko benn bu ci nekk mën nga koo jël nii saa nga toog nga nga lekk ko te du la jëriñ dara kon xam nga ne loolu problème newu ci garab yi ma boole composé ko yëpp benn bu ci nekk man nga kaa jël nga lekk ko saa nga togg ko te du la indil benn jafe-jafe te mat na lu tolloog juróom-ñaari garab amul benn problème lii wax dëgg yàlla suñ borom dogal na yàgg na ak man waaye jamono ji moo jaxasoo ñu bari nag dañ koy jël si dama koy yóbbante fu ne nag dama koy yóbbante wax fa dëgg yàlla bitim ñoo ci waaw dama koy yóbbante dama koy yóbbante lu bari nit ñi ñu ngi ciy xettaliku loolu lu wér la nag man maa ko essayé sama bopp jox naa ko ñu bari utiliser nañ ko xam nañ njariñ bi lu tey jafewut. mais loolu moom traitement lay laaj am ku ko soxla rek pour traitement ngay lay laaj am benn bi rek. waaw traitement la mën na laa bañ a sonal ci bu fekkee am nga ñaari paquet boo jëlee benn bi kudd bu ndaw rek tibbal nga sax naan ndox mu jàll nga tibbaat sax naa ndox mu jàll. boo ko defee rek bu soobi suruñ borom boo joteeg soxna si da nga ci yëg dara te soo ko utiliser trois jours yoo xam ne tegala nga ko mën ngaa toogaat pendant une semaine boo xam te ni sa kattan da ngay gis ne yaa ngeen moom mm. definitivement te dara du ci manqué waaw loolu am na solo yéen a ko dégg mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne soxla ngeen garab googu da woo sëñ Mamor ci numéro bi nga xam ne garab gi mi ngi tudd jàmmi kër gi waaw kooku mooy neexal kër gi te yëpp ñi képp ku ko soxla voilà ndaw ñi yéen ñi nekk ci réew mi yéen ñi nekk bitim réew da woo si numéro bi di 77 623 49 65 baa nga war ko su beneen numéro bi mooy 77 boo ko boo ko jotul ak un seul ndax dafay nekk ci <laughs> xat-xat yi bari waaw yenn saa nga nekk ci yooyu ndax coono yi day metti parce que gars yi dañ ko daan ah. kaas dañ ko jot ko problème lay doon wallaay ndeysaan boo ko boo ko wooyee moom ngay jot direct wallaay wallaay ndeysaan mais ñu dem ci wàllum këyit seex bi mhm. këyit doon nekk ñi nga xam ne nekk na bitim réew mhm. da gis ku fa yàgg lool pour mu am këyit bu mu xamante ni day ñëw seet si mbokkam yi problème lay doon baa xool si njabootam mais këyit moom nan nan la ko doomu aadama mën a jaarale ñëw ci yow ba nga ba mbiram këyit dafa xaw a difficile hmm. te dafa am yu ci laxasu hmm. ndax benn ki nga xamante ni dafa dem tukki hmm. dem ba tukki ba pare nekk fa di liggéey am fa ay at yu bari donte ne mi ngi am wërsëg wala wërsëg wi amewu ko nam ko bëggee waaye bëgg naa ñibbisi ci njabootam loola benn war ngaa xool ba xam kii boroomi rab la wala ngaa xool kii baxam dafa tëju wala ngaa xool kii baxam xam ki liggéeyal wala li muy li muy liggéey ak ki muy liggéeyal seenub ànd parce que léeg-léeg nga ànd nit seeni tabixa du du du du mën a composé bu ko defee mu jural la gàllankoor loolu loolu lijjanti ci foofu bu ma ko waxee mooy mën nga takk soxna boo xam te ni pour nga lijjanti dara mu sotti day jafe mun nga am soxna soo xam te ni relation rek ngeen seq pour nga lijjanti dara day jafe léegi nag étape yooyu boo ci tollee faaw sëriñ bi gëstu ba xam lan mooy sa gàllankoor bu ko defee nag ñaaru koy dafa am ay secret spécial am na ay secret boole ko nit ki nag faw nga tijji ko faw nga tijji ay bunti wërsëgam mooy tax ba wërsëg di ko mën a bett loo xam te ni foogu ko woon sax mu xam ne lii ñëw na te lii yaakaar na ne foogu ko woon bett na ko këyit nag wax dëgg yàlla am nay secret am na xalwatu am na tamit euh, takk sangu am na tamit yeneen ak yeneen ça dépend ci sëriñ bi secret yim ci yor rek waaye ñun nag wax dëgg yàlla ñu ngi ceeg lu wér te ñu ngi ci sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax te ñoo ngi ci jëflanteeg ñu baree bari bari émission bi bu doon am na ligne tey nga mën a ubbi téléphone yàlla xam na ni danga ci dégg lu bari wallahi alazim waaw mais ñu dem ci wàllum jamonoy tey. Mhm. boo gisee amul benn jigéen boo xamante ni waajuram maye na ko mu dem ci sëyam toog bari na lool bu dee 100 pour cent 80 pour cent yëpp ku si dugg si néegu sëy doo yàgg def 2 mois 1 mois ñu ni diw taggoon ak borom këram mais sëy bu naqari tamit sëy bi tey day bëri ay naqar naqar mais yooyu noonu yaa ngi ciy saafara askan bi. lu bari surtout fii ci réew waaw loolu moom day am te bëri na. daanaka sëy bu dee téeméer lan takkandoo ci benn bis. mën naa ne juróom-ñett fukk yëpp à l'échec lañ jëm. dañuy échec li koy waral mooy. benn jamono ji na na dund yombe woon yombeetunu léegi da ngay liggéey liggéey liggéey liggéey ba sonn ñëw euh, ñu mu jeex ci benn fan wa ilaa sa sa sa charge du attan sa sa sa sa njaboot du attan sa doom du attan say jabar du attan say parents boole ko benn loxo rek nga loolu yëpp doo ko booleeg ñu may la jigéen mu nekk ci kër gi te mayu jàmm xam nga loolu pour relation bi continuer day jafe beneen bi ci toppi tamit jigéen ñi tamit muñ daf leen a jafe jàpp na lu seen moroom am rek war nañ ko mën a am ci ci ñenn ci jigéen ñi muy iPhone 11 yeeg iPhone 12 yeeg yooyu te loolu dafay bokk ci loo xam te ni di di xayma loo xam te ni méngoowul ak sa jamono day metti euh, tey joxe metti na trop laaj metti na waaye joxe moo gën a metti <laughs> waaw bu ko defee nag jigéen moom bu leen yàlla boole nga ànd ak sa jëkkër première solution mooy nu ngeen mën a fexee ba ñane woon sëy bi du dem ngeen fexe ba ñooñu rus seen way jur yi dajaloo woon takk sëy ba ngeen bañ leen a rusuloo léegi nag am maa lépp bu amee mm. sëriñ bi doore ñëw yor xalimaam wala mu yor ay reenam wala yooyu nu mu mën a def ba jàmm am ci kër gi mu defal leen ko loolu nag wax dëgg yàlla maa ngi koy conseil ñëpp jigéen moom kenn du ko yor ci noonu jigéen moom mag ñi bu njëkkaan dañ daan dañ daan daaj jigéen suñ la ko mayee mu sëy si te nga xam ne jikkoom baax na xool nga ko xam nga ni kii nangu na baax na nga daaj ko ci kër gi mu toog ci sëyam sëy buñ ko faroon wax lu ko gën a métti ci àdduna mit du bouger danaa njaboot gi nangam nang waaye léegi nag loolu yëpp amatul Masamba day gisante mm, faatu rek ñu daal di fas sëy bi léegi nag day am lu ci war mooy boole seeni xol fexe ba seen ñoom ñaar seen rawaan yi mën a ànd ñu boole leen ci benn biteel wala lu mën a doon nga xam ne bët bu set jàmm rek day am loolu nag dañ koy def incha allah rabbi ku ci am soxna soo xam te nii wala euh, góor goo xam ni da ngeen a seq relation ngeen bëgg bëgg sëy te yàlla tax boo ñëwee danañ ci jàpp bu fekkente ne da ngeen di sëy te sëy bi bari coow bari ak yëngu yëngu yëngu boo ñëwee danañ ci jàpp ndax yàlla may nuñ fàgg fàgguteef te loolu jaamu yàlla rek la. dëgg la jërëjëf sëñ bi loolu am na solo yéen a ko dégg as mais balaa may génn si ba léegi maa ngi si loolu ci jigéen ñi. Mhm. jigéen ji nga xamante ni bëgg na boroom kër. mu jafe ko loolu da ngay gis koo xam ne day dem ba tollu yenn âge pour mu am borom kër. Mhm. waaye bu ñu demee ba kenn fëgg bay waaj a kii affaire bi daal mel ni dafa am lu si gàllankoor loolu Euh, sëñ libaas jamono ji fi nañ ñaar da cee am ñaar yi mooy léegi li li liy faatu moo ëpp liy dund léegi beneen bi mooy jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi teyit góor ñi daanaka fi mu ne daanaka ñu ci bari takkatuñ ndax li leen war ci néegu sëy daanaka ñu ngi koy am ci bu ñu yoree seenus ndaw wala dara ñennet ñi ci ñi ma ko sañ a wax léegi nag jigéen ñi nga xamante ni nag dañoo majeur te war a sëy nan dem seeti solution solution mënta weesu ñaan lu ci yàlla waaw ndax ñaan yàlla nag amut lum mënut am lu amut lu mënut boo gisee ku la doy mm-hmm. ah nga dem na ko sëñ bi man kat damaa toll ci at sàngam vraiment te soxla naa sama bopp te su ma sañoon yàlla may ma borom kër gu ma jaamoo yàlla mm-hmm. lépp ngeen teg ko ci saraatal mustaqim wallahi lazim gaw mën a sëriñ boobee bu dee nit ku sell la te bu bu ne capp xalimaam def li wajihi la yàlla dana ko ci gàntu loolu képp ku bëgg jot yeneen yéen jigéen ñi nga xam am borom kër waaw yi nga xamante ni bëgg seen sëy seen kër neex da koy woo ci numéro bi kooku mooy sëy loolu fàgguteef am na ci am na ci saafara yoo xam ne dañ koy bind boole ko meewu béy nga sangoo ko fan yu néew am na ci loo xam ne fuddan lan la koy defal nga fuddanoo ko balaa fuddan bee ràpp nga gis ku wax ak yow am na ci loo xam te ni mbit euh, neexu la expliquer ci ci ci média waaw secret biir la daal biir la dëgg la képp ku ko bëgg xam ne da baa nga bëgg ci loolu muy dimbali da ngay ñëw woo ko ci numéro yi nga xamante ni mooy 77 mi ngi noonu affiche ci baaru écran 623 49 65 maa nga woo ko ci beneen numéro bi 77 458 91 79 mais si ak ba lay ñu xuus ci waxtaan bi mm-hmm. ñu dem ci wàllum ubbeeku pour nga ubbi nit ki waaw lu am solo ngi noonu ndax góor bu demee ba toll ci ay bëgg-bëgg te wërsëg wi demeetul noonu liggéey taxatu la am faaw ay pexe ji am te lépp génnul nag ne yàlla mooy boroom asamaan ak suuf te li nekk ci diggante asamaan ak suuf lépp moo ko ci def teyit ku am moo la jox ku ñàkk moo la xañ moom it moo wax ci alxuraan ne gémmiñ gum xar dana ca def dara waaw kon daanaka problème mën naa bañ a am ci naka ginnaaw bu ma saxee ci jaamu yàlla ak liggéey naa dem sëriñ bi mi ngi fii ndax sëriñ loolu lay jariñ fekk nit ku nekk ci xat-xat mu jàppale ko yàlla génn ko ci moo xam feebar la moo xam ñàkk la moo xam leneen la bu dee dëgg ngi ci moom ak leer ak jege yàlla lum ca lum ca lum ca jublu rek suñu borom mën na ko caa fekk waaw ndax nit ki jaaxle yor kër ab dépasse ko ñëw nga bind dara jox ko mu dem sangoo mën a gérer këram gérer njabootam kooko yow mën nga ne effacé nga ñenn ci ay agresseur ndax tey ay njabootam buñ màggoon te amuñu yenn condition yi mën nañoo nekk ci mbedd mi teyit loolu bokk nga ci ñi ko dindi kon yaag liggéeyu état yéen yam yem sëriñ si nañuy bàyyi xel ne du du caagee nag lu ma def rek dañ maa war a jox xaalis par force nañuy dimbale jaami yàlla yi leen ndax dañuy war a andi seen participation ci so ci société bi ci société bi ba tax na daanaka wàllu ubbeeku euh, loolu moom tifaaxan amut amut ma dem te ñëw am na ci jooni jooni am na ci yoo xam te ni euh, cangaay la yoo xam te ni benn yoon nga koy sangoo ci at mi du ñaar am na ci yoo xam tamit buñ la ko defalee moom doo laal lu yëngutuwul loo laal mu yëngutu buñ la ko defaree ba pare naan la demal loo gis ne boo ci duggee sam xel mën na laa may xaalis dugalal sa loxo doo ñàkk waaw. na solo garantie yi leer na nañ yéen a ko déggandoo mbokku internet ñu dem ci wàllum euh, lu jaaro bu yàññi beeg chaîne bu rafet bi nga xamante ni moom ngay man sax dama naan ñi bitim réew moom <coughs> ndax mhm. taxaw. Mhm. jaaro yi bëggoon nan lay ci yooyu. waaw jaaro yi ak chaîne yi. dañ koy def dañ ko faroon a arrêté sax ndax da ci am ñoo xam te ni dañ cee raxug njublaŋ dañ cee raxug njublaŋ ci ci ñenn ñi ma ko sañ a wax ndax ñiy woote sëriñ dafa bari te ñiy jubul dafa bari te da cee am ñoo xam ne xaalis rek ka leen itteel waaye dëgg-dëgg seen digganteeg seen borom sàmmonte wuñ ci dara seen digganteeg doomu aadama sàmmonte wuñ ci dara ci xàq ba tax na daanaka dafa jafe nit ñi yor lu baax fi mu ne sax mënatuñ koo jox ñi ko yittewoo ndax ñu bon ñi mm-hmm. waaye loolu a ah, man ak ñi ma xam mm-hmm. doy na ma sëkk mm-hmm. bu ma ci yemoon it jarul may yuutu leneen waaye man li ma yor naxewu ma teguma ko ci lenn lu leeru man ku ma xas xamanteel gis naa ci màggug yàlla gi ne sama relation ak yow du dog mukk ndax di dinaa la wax loo mën a jàpp dinaa la defal loo mën a téye tey dinaa def loo loo mën a teg sa bët loo xamante ni lii du yëfi gone loolu mooy li am solo jaaro yi ak seen yi nag njariñ la lu fi yàgg la waaye secret daf ne nag bu fekkente ne dem na ba law ba yaatu doonatul secret loolu moo ci yàq lu bare bare bare am na ñoo xam te ni rax nañ ci waaye ñu yor secret jaaru dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg naafilaa ngi ci am na ci jaaro yoo xam te ni woor ngi ci lépp tey njariñ rek la chaîne it am na ci loo xam te ni mag ñi ñoo ko daan ràngoo muy xoof wala dàkkung daam muy loo xam te ni bu dee dangay nekk ci mbooloo soo ne tël nit ñi seen fit yi mel ne lu tiit loolu bayre la yooyu dañ koy defar mook jaaro bi yëpp dañ koy joxe waaw mi ngi fi ko ko loolu am ñu dem ci rapidement mhm. moom mooy mooy mooy sama mbokki commerçant yi wala kuy jaay wala lu mën a doon rek palaasam mën naa ubbeeku te jëmmam du ubbeeku nit ki jëmmam mën naa ubbeeku te palaasam du ubbeeku bu boobaa nag boo ne bayre place ci nit ki da ubbi moom borom place bi defar place bi place nag moom mooy nga defal ko loo xam te ni bët bu set nit ñi dañ fay ñëw di fa dajee doon garam place loolu rek la va et yi loolu rek mooy bayre place lu yomb la nag bëgg ba affaire yi jafewul déedéet ñun ñun moom yàlla dogal na dañoo xam tolluwaayu jamono tey kenn ku ne noo ñëwee. ñu doxee fa ak yow rek. loolu am na solo mais bi xam naa ne waxtu bi li ñu doon ci waxtu cër euh, xaju mais waxtaan ak yow dañ la namoon lool. askan wi moo ko interroger tamit namoon la lool. macha dañuy dem ci actualité tolluwaayu réew mi. Mhm. surtout diggante ñi nga xam ne démb bërki démboo <coughs> njaay démb rek maanaam accident bu metti am ci waa kër Ousmane Sonko yi mhm. muy benn cadreuram ak ay garde ñett ñoo xam ne faatu nañ ci te tey ñu mu doonoon dëj bi tey lan nga lan nga ñu mën a wax ci tolluwaayu réew mi ak nan lan mën a def ba mucc ci yooyu noonu waaw foofu nag muy lu metti mhm. te metti ci ñëpp ñoo ngi koy jaale mhm. leaderu politique boobu di Ousmane Sonko di ko ñaanal yàlla yan bi woyof ci kawam te sarax bi yàgg ci loxoom moom ñi ko àndal ñëpp ñaanal tamit ñi fi bàyyi ko suñ borom bi mm-hmm. wàcc yërmande ci seen i bàmmeel te mm-hmm. jéggal leen seen i rëcc-rëcc ginnaaw loolu nag buñ ci waxtaan nag mooy que liñ koy dénk moom mu doolee muñ mm-hmm. pour nit ñi fekk si la dafa jafe ku ko weddi xool ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa bi muy laataa taxawal lislaam sol na ci lool lu ne daj na ko moo ki saaba am waaye teewut jom ak fulla aku fit ñett mm. yooyu rek la làmboo woon mm. jom fulla ak fit kon nag maa ngi koy dénk ñett yooyu na làmboog moom lu metti metti metti metti bu mu déexlu bu mu wanee ginnaaw bu mu daw su ko defut yàgg yàgg li muy xëcc mm. suñ borom dana ko tekki loxoom loolu am na fi mu ne nag ku aj moom ku aj bëggul kenn ku téen ba gis li mu aj waaye accident bi dogalu suñu borom la lu ñu mën kii waaye ginnaaw accident bi am na yeneen yu ciy xew yoo xam te ni doy na waar te politiciens yi fi mu ne hmm. féticheurs yi bari nañ ci dëkk bi bari waaye goo xam te ni toox yi doone yu ne ñi ngi koy def ñi ngi koy def te dara dëppoowu ci ak lislaam dara dëppoowu ci ak ndigalul yàlla lu dul ne bànneexu doomu aadama rek lu ne ngay gis ñu koy suul ci bàmmeel yi ak yooyu te yooyu mën naa sabab ay jafe-jafe ndax lépp ci mbiru àdduna waaw ndax tey jii ñooña seen bopp woyof hmm. jombul kenn ci cortège am jombul kenn kon maa ngi koy digal ne mm. lu lu mu sangu bu mu xeeb sangu bu mu xeeb takk bu mu xeeb ñaan yàlla bu mu xeeb ku koy ñaanal yàlla teel a jug ci boppam waaw mm. lu dul loolu lu dul loolu ndax obstacle yi dafa des mm. te li ci des dafa bari na jàpp ne fii ba vingt 2024 di jàll fii ba vingt 2024 di jàll natt bu ne suñ borom mën na koo te doomu aadama lu ne lu ne mën naa xew ci moom kon nay bàyyi xelam bu baax a baax a baax fàggandiku mm. suñu réew mi maa ngi dénk nit ñi ñu dal te xam ne lii àddina rek la mm. te léegi mu jeex ay jamono ci ginnaaw dara doxut lu waaye di yëngu taxaw na ndax corona te yàlla moo ko fi yebal mm-hmm. mu doon nattub jaam yi kenn ku ne naan nu may def ba mucc ñuy lim ay dee di lim ay dee di ay dee te kenn ku ne yaa ngi tiit naan ndax man ci lay bokk subaam déet kon jarut xëccoo jarut lenn a ah, noonu laa ko gisee suñu président bi maa ngi koy dénk mm-hmm. mu muñ mm-hmm. te xam ne xalaa kulli xaal mm-hmm. moom wàcc day am nguur day jeex nguur yàlla rek moo dul jeex de day jeex nag wàcc bu jotee na ko def te nam gën a rafetee te bañ cee indi coow lu du loolu yàlla dana ko bip te bu ko bippee gàccee lay doon ci moom gàccee lay loolu am na solo seex bi xam wax kàddu yi rafet na lool pour li nga wax ci réew mi tamit am na solo lan ngay tàggatoog mbokk internet waaw di nuyu ñëpp di delloo cant di leen jaajëfal ci coono yi ngeen def pour toog ak man tey waaw di di yéen waa Sunugal 24 mm. di lu seen liggéey ak ni ngeen di taxawee mm. yenn acti action yi ba xewee ci réew mi damay dama seen i du ngeen gis lenn lu ñaaw loo xamante ni da ngeen ko génne wala ngeen di vilipande doomu aadama seen lépp tege na ci yar ak teggin mm. di leen ñaanal mu doon ba dem ba doon télé bu mag tey suñ borom jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax yéen ñi ci liggéey kenn ku ne mën caa gis boppam law di ziyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp mm. di jéggulu tamit sama mbokki extérieur yi nga xam te ni ne maa ngi fi mm. nekkoon ci ab tukki rek waaw te yàlla dogal biñ ñëwee ñu nekkaat ci fatu mhm. loolu rek moo ko waraloon barakallaahu macha allah